ah seet sil ki nga xamante ni moo di soxna Nafi Fallou Fall soxna Nafi Fallou Fall aka doy a la voyante guérisseuse mbokk yi adresse baa ngi noonu cité Aline Sow guy gi guy bu Siteu ngoog mais bu Siteu Euh, ay non niveau bee yéeg <laughs> niveau bi xam nga li ñu naan niveau bi léegi dafa yéeg le champion est là borom bés baa ngi noonu tey nga war a jàkkaarloo. mais bu mais doom yaay mooy vrai niveau nag. Ah, kon léegi bu mi ngi mi ngi mi ngi téye bi. waaw gis nga noonu la demee gars yi. sant nii sant nii. mais tey ko lamb ji dafa li nga war a bëre tey dafa mel ni lamb arène sa waa jël ko o sérieux mais yow da nga ko oyofal loolu dinañ ci gën a yaatal après. lamb tubaab la quoi. ah, ah lamb tubaab la moo nii quoi. ok lamb tubaab nii lay demee. calme rek. Ah. Ah, parce que king boxing la. king boxing la. dama lay bàyyi nga wàcc après ñu waxtaanee ko bu mon frère. bu si taa ngi noonu soog a yegg seeg waa koñam gis ngeen. national bu Siteu <laughs> niveau bi léegi yéeg na. niveau bi léegi yéeg na de bu woo ngi noonu. ay monsieur la laal. monsieur la laal kon lamb tubaab ak lamb sénégalais bokkul. lamb tubaab lamb tubaab ceebu jën. lamb olof ceebu jën ngay laal. bu mi ngi wan ne nag tey lamb tubaab lay def waaw ok. lii dinañ ci waxtaan ak moom. ñu nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax defe naa tey bu si taloon seet si bëgg waxtaan ak moom ndax kenn fàttewul ni tey la war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ne mooy Laurent King Boxing wuute nag làmb kickboxing ndax tey ku la fekk nii nga taxawee nii xam ne bés bi wute naa ki yeneen bés yi nga xamante ni moom nga doon jëflante ak ki nga xamante ni nii mooy ci làmb ji mais tey nga jàkkaloo ak ki nga xamante ni mooy Laurent bi mooy deuxième fois bii dafa wuteeg bee mais tey dama gis lu bees sax tey da nga dem kickboxing mais préparation bi dafa mel ni wute naa ak yeneen préparation yi boobu waaw préparation yi moom wute naa yi bala ma wax dara damay nuyu àdduna di nuyu waa Sénégal di nuyu maanaam àdduna daal di nuyu tamit diaspora bi bu baax a baax a baax waaw di nuyu Bou Siteu daal international ak képp kuy bëggee Bou Siteu rek waaw maa lay nuyu bu baax gi wax ni xam nga waaw gis naa ñaani bu baax waa Touba wan xam nga waa Kaolack waa Medina Baye xam nga waaw gis naa ñaani daal di leen bu baax a baax daal di sant tamit kilifa diine yi bu baax di leen wax ne dañ ma gën a yokk ñaan daal ñu dem xam nga dem gagné Roland si king boxing bi ñëw indi ndam li quoi ndax événement la événement la événement boo xam te nii maanaam événement boo xam te est-ce xam nga événement bi mosoon na fi am. kañ daaw amoon na comme nii mais tey buñ buñ ko tëggee dugal ci bu Siteu ma am tey fu ma yóbbu événement bi. kon lii moo lay wan kon événement bi bu amatee bu Siteu ñàkk see dugg wóorul waaye. non loolu yoon sax loolu moom wóor na Eric faabur woor na Aline Ngay wóor na Yaya Yaxya Diop. mais ñu si béy nee ne Laurent dafa xewi woon fi mu toll yaa ko xewalaat. waaw mais xam nga rek maanaam loraan Ndiago phénomène la nekk ci làmb ba muy ba ma koy jël benn combat bëre woon. Mm-hmm. waaw maanaam man maay nit xam nga rek koo xam te ni am na talent ci làmb ñu jël ko may ko loxo yëkkati ko ku xam Rona xam ne Rona Ndiago moo ma daanoon ma jige si ay tolof tolof. ba ne woon da ngay gàddaay bàyyi. da damay bàyyi tubaab bi tëgaloon ko MMA muy pratiquer MMA bi affaire bi échoué ñu ñu dugal ñu si king boxing xam nga rek tubaab bi tamit laaj ko kan nga bëgg a bëre mu nekk nag ku gore. te parce que bu neexoon ne buusu bu ko neexoon mu fàtte benn combat la bëree ma jëloon ko may ko loxo ma bëri douze combats. jëloon ko mayoon sens. maanaam boobu dama ko bëggoon feeñal ci làmb ndax dama ko gis mu nekk booy boo xam te ni maanaam. kon ma déggee làmb la moom moo la mayaat sens. non mayaatuma sens te parce que déggoo lu ma la xam dafa ma ba ma daane ba léegi mu si ay tolof tolof laa nekk. Mm-hmm. tubaab bi laaj kan nga bëgg a bëre si king boxing bi événement bu muy tëgg ngaa ko benn ak axlu biri gi amul ku mu taamu ku dul Bou Siteu kon kam moo yor caf ka làmb comment yor caf ka làmb la daan ci hmm. moo tax mu laajaat ma te maanaam fi mu ma laajee sax dafa neex hmm. te parce que bee passé ñëpp gisoon nañ ni mu demee bu ma nee nii mu daw génn kon tey buñ demaatee si loo xam dañuy tëj kaas bi tëj barrière yi lamp yi tiim ñu sat bi na teg grand théâtre ñëpp mais loolu yàggatul. même pas deux heures de temps rek. li ma ci jaaxal mooy conc yi wéq yi. oh wute naag làmb. làmb muy muy muy rek comme maanaam ba ma nekkee xale di di di seetaan ay ay ay on bak ay jatli xam nga yooyu yëpp dama koy pratiquer si affaire yi. lan nga lan nga ci gën a mën. bi ma si gën a mën nag muy on bak bi. waaw on bag bi ak Zakizan bi <laughs> ak karaté yu vandaami yooyu noonu yëpp dina am si affaire yi. mais est tànk bi dina jóg. ah lu ma sama tànk du jog man xanaa xam nga man si làmb rek nga ma doon gis muy bëre ci làmb làmb tànk du jóg bu tànk jógee ñàkk nga dañ lay disqualifié. mais mais damaa dem ci loolu fekk ko aaramaa ngi doy na ma seede mburu sec la jënd di laaj ay spaghetti ay thon la doon lekk neen day soulagé wu. mais loolu la war a lekk te parce que bu lekkee leneen lu bu lekkee mbaam xuux bu ñëwee foofu moo doore dóoree si day day wàccu mbaam xuux est-ce xam nga ne affaire këdd am na si. këdd meen këdd coñcu gëng te yooyu dama koo mën maanaam xam na lu mu lekk te parce man maa ngi nii suba ba léegi lekku ma te si sport bi ma jëm la king boxing laa jëm si biir këdd lépp am tey ji bu ma lekkoon lu diis tey jii ndekkiwu ma añu ma nii may waxee yow nii. loolu na. benn daggitu pooju ginaar laa lekk rek sànq benn rek si suba ba léegi nag maanaam sport bi may pratiquer la king boxing laay pratiquer ku si lekk sa biir bu feesee bu ma la dóoree kon Laurent Ndiago day day day day wàccu ay mbaam xuux waaye. nee na ci foie la lay na ci foie la ma dóor man looloo ma jaaxal. non foie nag amul waaw ay dóor ci foie yi moom yooyu sax tubaab bi nee na sax yooyu amul man mi su ma neexee dóor ko ci xol. dóor ko ci naq fii du neewi mais man sport bi du ma si dóor foo xam mun na mun na ray nit mais man mun naa ñëw ne damay def Laurent Ndiago lu ma dóor ko foo xam te akamaa xam point nag point buy ray nit ma dóor wallaahi mun naay mun naay box ak moom ma bàyyi ko ba mu aj nooy bi di nooy ma am foo xam duma ko wax nag pour balaa xale yi ndaw yi di fooyee loolu di rey fi doomu jàmbur ma dóor ko point boo xam te ne nii day ñaq bakkanam mais du ma ko def. déet moom dañ ko loolaa dañ ko soxla ba ci xol moo gën a nekk risque. dóor ci. moo gën a garaaw fii nii. te su ma neexee dama koy dóor foofu noonu ray ko mu dee mais duma ma ko ray te parce que dama ka bëgg. foie mooy xol. ah non foie la nga wax foie. ak ah, xol. waa ci foie bi ci xol bi ci nooyu nooyu bi bokk mais lekk na sport boo xam te ne xam nga dama siy ñëw wane ci fair play rek lii événement la rek man lii du làmb de jàppee ma ko bis de. mais nag nee na mais nag nee na. danga woon entraîné da ngaa juum da nga woon entraîné entraîné woo nga topp TikTok bi en ah, réseaux sociaux yi ba làmb ji jege si te entraîné woo nee juum. <laughs> di nuyu Zil Saw bu baax sama transitaire bi Saw. di ko nuyu Saalu Ndiouga kebe mais xoolal tey sama niveau fu mooy yóbbu man sama niveau képp ku aj sama niveau rek waaye dama naan kii yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye. te parce que ñëpp xam nañu ne Bou Siteu niveau am dépassé na yenn niveau yii kon tey ku si mel ni Zil Saw bu ma inscrire Saalu Ndiouga Kébé yow waaye loolu waaye kon añ na sama niveau waaye di nuyu di nuyu Habib Ba seen mafia bi ñoom ñëpp ñoom ñoom Mouhamed Nabi ñoom ñëpp maa nuyu bu baax. ok léegi bu waaw yow yaa ngi Laurent ngeen di def wala lan ngeen di def ndax gars dañoo bëgg mu leer. non lii king boxing la. mooy lan. la ah. ak loxo. waaw boxu boxu ak tànk yi tamit day démarrer. léegi bopp ci la bokk wala. non mbëkk amul boo mbëkkee dañ lay disqualifié. gàjj man tubaab bi daf maa wax lu leer Eric Favre déggal ah. Eric lan daf maa wax lu leer. lan la la wax nañ ma règlement yi que xam nga ne xam nga ñoo ñu doon ñoo kii tey ah. ay nit ñoo xam ne Suisse lañ jugee. te bu Siteu moo leen indi moo tax ñu jugee ba Suisse ñëw fii tey Sénégal. léegi première jour bi nga doon kii nan nan nan la ba ñëwee di la expliquer règlement yi nan la fa demee en français lañ doon wax wala en nangale wala ñoom seen làkk. non en en wolof. Ah. te gars yi am na ñu si jàng olof am na ñu si mun olof ñi mun olof ñi laa doon waxtaan ñu war ma règlement yi war ne ma ne matt amul conco amul xam nga koloj yooyu yëpp amul si affaire xam amul duggante amul jàppante maanaam tànk la ak loxo amul song amul jàpp man looloo tax nag combat bi neex mais dégg naa dañ lay dóor dóor tànk sa kanam bu toj duñ la bàyyi. non loolu ki kii kii la MMA la. Ah. MMA la man MMA du ma ko bëree yenn kese yi nii bu doon MMA la su bu ma fayul deux cent millions du ma ko bëree. lii king boxing la. waaw léegi yéen barrière la ñuy kii amul arbitre amul dara tubaab yi ñoo leen di kii léegi nan nga nar def. mais lu ma nar a def rek muy li nekk si man ma wane ko. muy fit bi nekk ci man àdduna ñëpp xam ko. ak jom bi nekk ci man man bu comédie jotee moom mun naa di ñun neexal ko. mais buñ jëmee ci yëfu jàmbaar yëfu gaynde li ma gën a mën nag. ma jëm ci sport boobu. Hmm. li affaire jàmbaar la. comme nan nooy jàmbaar loowee. waaw nu ñuy jàmbaar rek muy maanaam ku ku ragal dañ lay dóor ba nga dee. waa ragal waaw wala ñu dóor la ba nga xam ba bàyyee ko nga ñàkk. mais lii nii dama si dem ba jeex trois rounds lañ jëm. trois rounds waaw trois rounds. mais police dégg naa dina am. ban soo def comme boo defee benn affaire comme toj bopp bi wala def benn affaire bu extraordinaire wala dóor ko bu am bonus. kon da ngay am bonus. waaw wax nañu ko. te tey dinaa am ay naax bonus. Euh. te parce que man Roland xam naa ne man yàlla na encaissé premièrement rek sama droite tak mu encaissé benn droite. que dégg naa da nga koo guuxal la mu la ah, defoon da koo te xam nga ne combat bu bëri woon nañ ay minutes yu bëri may ma koy fekk pour dóor ko rek ah, ah. muy daw rek di génn mais bii imagine toi bii dañuy taxaw jàmm am njaay joxol jóob tànk yi moom buy man moom sama tànk moom fu mu ko dal yàqu na ndax samay tànk ay fit la les premier round tànk yi buy ñëw sa du ko gis premier round bi nan nga ko nar a defee da ngay xalaat combat arène nationale day ñëw a defee comme premier round non premier round moom nu ma koy kiiwee rek muy premier round bi dinaa naa ko cof-cof yi métti ah. waaw premier rang bi naa ko cof-cof yi métti ah. ba ba mu leer ma ne am naa foofu ay point ah. bañ bañ si deuxième round bi deuxième round bi nag damay téye sama bop dama koy bàyyi pour mu ñëw fay ndax cof yi moo ko cof léegi foofu noonu sa heure bu ñëwee dama koy remise dama koy remise tànk nii pour yow tànk boo ko si am maa wax nii rek te yi fàtte ngeen tànk yi nii këng bu dee loxo bi kay box noo koy boxu kay. boxu daa yoon de. boxu yëpp la am xeexu mbedd la xeexu waga la. ok waaw Laurent bi passé da laa daanoon matt la est-ce que mën nañoo. waay mattu ma matt fan. matt mattu la waay loolu man maa fi daan maa la Ndiaye transfert fu konko kenn muusu ko def ci lamb non munu ma mattu ma. ok léegi ci combine bi nee yéen ñaar da ngeen a nar a combine dëgg combine bu demee maanaam ah, ah dégg de nee yéen ñaar da ngeen a waxante seen waxtaan léegi da ngeen di combine. <laughs> mais combine boo xamante ne nii yaa ngi fa toog. Ah. ñi jugee Amérique ñëpp a ngi fa France ñi jugee Lyon rek mënu ma ko compter Italie ñëpp a jug mais yow lii nii king boxing amateur la. ticket vingt cinq mille dix mille cent mille. mais ñooñu dinañ dagg seen ticket yu seer toog bu nan day combine. bu arbitre bi sifflé laa la Roland Ndiaga dañuy combine bu arbitre bi sifflé na na na ma lu toll ak tara fatal ay ni su ma dóoree day day gaañ. booy nee nañ soo bëggee lu nooy. na nga teel a tàpp tàpp bi. tàpp tapu tapé. waaw wane na gagné na ma. waaw gagné na ma. na ci am. yooyu yëpp na ci am mën naa ko dóor ba mu tapu tapé bi. mais mais tapi su ma tapee tapi bi su ma ñëwee fii nii waa géej waay waay waay nañ ma waay. ba pare gars yi nee nañu la déggee ngay jëlee revanche gars yi loolu la ñu wax. Ah. waaw nee nañ la déggee ngay jëlee revanche. laa jëlee la déggee revanche. Ah, jàmm gën a géej waay la jeexagul. jàmm gën. ak géejewaay. bu xaaral foofu aja. maanaam loolu jàppee moo ko sax ah. man maa Laurent Ndiago lii nii beneen sport buñ dugg la king boxing la lii du revanche lii combat bu bees tàq la euh. bokkul ak comme yi fi jaaroon ay combat yoo xam dafa daw ba làmb ji jeex. mais boo soog a jëm boo def abandon def. su ma sonn mais la mooy sonn dëgg la damay sonn de mais loolu dama kaa liggéey entraînement ko. mais tey boo demoon que man nan ngay tapé la mooy mënatoo man man may xale bu ndaw man pël du ma yow dëgg man man ma Ndiaye man du ma sonn de. waaye yow bàyyi ma waaye ak ay sonn. Ah, ah. mais man nan laay jàkkaaroo sa ma góor naan maa ngi sonn dëgg la nag góor la la dañuy xeex ba sonn man su ma sonnee kon Ra Ndiago lan la war a def. ah Laurent mais nag nii ci état ndax doon préparé MMA. waaw yow déggalu ma la man état bu mu mënti nekk man bu ñu si état man maa ngi doon doon toog nekk sama bop nekk sa bopp waaw am loo xam te ni nag day nelaw ci man te ci ay loxo yu wóor wala waaw te nekkaale nag si ay loxo yu wóor a wóor wóor a ay loxo iliman laam suma papa kontaan naa si moom trop king boxing da yóbbaale verre yi king boxing waaw verre xam nga ne fu ma jëm verre daf may topp mais topp nag walaahi daf may topp ah? heure jot na sax ñi may woo ni sànq léegi non non ay yar du mais mais fan la. bu mis wi. mis wi. mis ginaar yi kii laa togg ku si mel ni ku si mel ni Nicole Nicole benn soxna su baax Nicole di ko nuy bu baax. dafa yëg sama affaire bi rek na ma bu léegi maa ngi togg añ yeeg lépp rayal ma cinq gin déggal ginaar toggal ma ceeb bu bari gis nga Nicole maa ngi koy sant bu baax borom ah ay mis yu ginaar lépp la la la la Nicole Nicole maa ngi koy sant bu baax doomu nday da baax. ah waaw ak yoraale oto niveau. auto oh, niveau li moo lay wan ne sama niveau dépassé na yenn niveau yi waaw garant bu baax yëkkati oto may ma oto bi. moto bi sama niveau dépassé na moto nga naa ma moto. nga ni sama niveau dépassé na moto. mais yi mais look bi dama gis. waaw ñëpp la ñuy sol look bi nag maam Fallou bi. mais sa look ku ma xam-xam maag maam Fallou. sa look bi look bi. si look bi. look bi. lug bi maanaam lii mooy lugu dugg si. moom la ñëpp di moom la ñuy sol. Ah, ah. mais dafa mel nga nekk nii moo dàq roi des arènes ah. li ma nekk ni moo dàq roi des arènes. fan yii passé Modou Lo ba mu daanee Ama Balde. dafa def émission Modou Lo déglul leen li ma leen dafa def émission. Uh-huh. ma génn def émission. ma may ko deux jours mais bañ xoolee fii waaye du ma morom mu ñëw Modou Lo waaye. man la ñëpp di topp. mais instant bi côté roi sax toppatuñ leen. léegi yoon bi nga nekk kon ak yoon bee ban bii moo gën fuuf. ndax waaye bii moo gën temps si ay loxo yi salta laa nekkoon ay loxo yi safaas. ay loxo yoo xamante lépp luñ ma wax tas sama yaakaar mais léegi sa ay loxo yu wóor laa nekk xama nga laa ko xamee sama combat king boxing bi ah. ak sama social bi ma doon def si prison yi ma lu ñu wax def ko man loolu laa gëm si nit ah. te ñooñu maa ngi ñoom waaye da yéex naa leen am waaye loxo yu wóor yi ma nekk ay loxo yàlla na ma yàlla musal si loxo boo xamante ne nii yéex. Ah. waaye yow loxo yu salte waaye yow. affiche yi boo ko gisee ay buur. mais sama niveau mbuur dëkk bi mbuur fépp man lañ taf mbuur.